alhamdulilah rabil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin nabiyina wa xabibina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi nu ngi sant sunu boroom nu ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi ñaan sunu boroom mu dëkkee defal nu tawfiq musal nu ci sunu bon boni bakkan ak sunu ñaawteefi jëf musal nu ci sunu noon boobu nga xam ne yàqal nu la bëgg muy iblis waaye saxal nu ci njub ba keroog ñuy dajeeg moom ca kër ak yërmandeem nga muy aljanna dellu siwaat nañ ci ñaareel bi yoon ci xutba joojee nga xam ne mu ngi joyoon jëm ci leeral ku sunu borom dinu leeral ne seytaan day seen noon la jàppee leen ko noon ndax dafay woote akuk mbaboor gi ko topp ngir mu am ñu mu wéttali konteel ngir tàbbi sawara gisoon nañ ci xutba ji weesu kan mooy seytaane wane ni bokkul ci malaakaya wane ni jinne ak seytaane wenn xeet wi la waaye na am nañ différence seen diggante wax pexe yam pexeel baay aadama ba génne ko ca àjjana ja kër ak ga ak wàcce gi len suñ borom wàcce ci kaw suuf teel a xamal aadama ni ko kii noon la loola jàpp naa ni ma ne si wax lu baree bari waaye jàpp naa ni lañ ca jotoon a junj rek fii kifaaya ngir tàbbi ci ñaareelu xaaj bi mooy inna shaytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa shaytaane moomale nga xam ni moo génnewoon woon bàyyi aadama ca kër xéwal ga di àjjana sunu borom mu ni seen noon la kon nag jàppee leen ko noonu jàpp naa ni noon boo xam ni sunu borom moo nu déclaré ni kii seen noon la yemut ca loola yebal ndaw lu ñëw di wax nan la ñuy def ba mucc ca noon ba wàcce téere boo xam ne buñ ko dee jàng dañuy xam nu ñu muccee ci noon bi noonu booba day jàpp naa ni kon war nañoo mën a mucc ci moom waaye lépp mu ngi amee ci ndimbalal sunu borom kon loola ñu jot a leeral jàpp naa ni firnde bu rëy ga ca ndax xéewal yin am yépp ak lu nuy baax bànneexoo àjjanaa ca gën a rëy la gën a rëy ci sunuy xéewal ka ka xañoon sunu baay jàpp naa ni kooku bu ñee la sab noon la war ngaa yëg ni kooku sa noon bu wér na loolu tax na sunu borom ni ee yéen doomi aadama yi wattu leen seytaane fitnaal leen ba yàqal leen comme ni mu yàqalee woon seen baay aadama ba génne ko àjjana ndax daf leen a wuññiloo woon seen i ayib nga xam ngeen aadama alayhi salaam borom xam-xam yi dañuy wax ni bi nga xamante ni dafa mooy yàlla ci biir àjjana colka gi mu soloon dafa dañ ca moom te loolu alquran saxal na ko ci suratul araf fa badat lahuma sawaatuhuma seen i ayib daal feeñ loolu ibn alqayim rahimahullah bokk na ci li muy sukkandiku ci adda téereem boobu di at adda wa dawa di wax ni kon bàkkaar dafay xaawi sutura di nga gis koo xam da nga gis natt bu métti dal ci kawam ba suturaam xaaweeku ñëpp gis ni kii kat suturaam xaweeku na fekk boo ko toppee ba ca biir bàkkaar bu mu defoon la bàkkaar baa ko yóbbee sutura su xaweeku xaaweeku soosa ndax aadama kat suturaam daa xaaweeku ngir benn bàkkaar bu mu def kon day kii def bàkkaar yu bare bare jàpp na ni kooku la suturaam gën a ci xaaweeku suñu borom mu ni kon bàkkaari aadama yooya benn bàkkaaram dafa xaawi suturaam kon moytu leen bàkkaar yi xaawi seen sutura léeg-léeg nga gis ku xaawee ko sutura sutura su méttee métti te fekk la ko ko yóbbee boo ko toppee ba ci biir bàkkaaram la suñu borom mu ni ci surtout Faatir seytaane de seen noon la jàppee leen ko noon moom da day woote ngir am mbooloo mu mu àndal ngir tàbbi sawara kon weddi leen ko ju njuuy leen ko wuute leen ak moom ndax lim leen di wax lépp ay nax la te foog naa ne discours bi bàyyi ko suñu borom de boobu lañu war a gëm ci gën a gëm ci beneen bal moom rek sax lañu war a gëm ca suuratul baqara suñu borom ni ee yéen nit ñi lekk leen ci lépp loo xam ne mi ngi ci kaw suuf te laab na teey na dagan na waaye nag seytaane moom jéego yi muy séqi yoon yi muy xàll suñu borom ni bu leen ca jaar ndax seen noon la moom daf leen di woo ci lu bon ak lu ñaaw ak di bëgg ngeen di waxal yàlla loo xamante ni du dëgg te xamu leen ko moo tax yonent bi saa salaam mu ne sunu borom nee na ci xadisul qudsi xadisul qudsi mooy loo xam ne du alquran waaye du xadis yonent bi dafa nekk ci diggante bi jàngkat yi xam nañ loola mooy loo xam ne yonent bi da koo jottali rek waaye yàlla moo ko ko wax nam ko ko waxee mu jottalee ko noona sunu borom mu ni man de sama jaam yi damay na bind ñoom ñëpp ñu set wecc kenn taqut dara gis àddina bi juif yeeg catholique yeeg athée yeeg jullit ñeeg ñu sàggan ñeeg bokkaalekatu yàlla yeeg boole ñépp kenn ku ci nekk ba ko suñu borom bindee dafa setoon wecc waaye nag seytaane ñëw daay def ay pexeem ñii nekk ay juif ñii nekk ay athée ñii nekk ay lii ñii nekk ay lacades ñii nekk ay bokkaalekatu yàlla loolu alquran saxal na ne loolu liggéeyam seytaane la bu ko defee mu daal di dagganal ca ñoom la yàlla xaraamaloon commencé di araamal ci ñoom la yàlla daganaloon kon seytaane xam ngeen mbokk léeg-léeg da ngay romb ci tableau ci tableau affiche yi ñuy def nga gis ñuy wane ne société nangam kat fi mu nekk nii ci expérience am am na ci cinquante ans soixante ans loolu dafa yéem nit ñi na xam ngeen cinquante ans soixante ans kat bu ko am nga xam ne mi ngi jariñ nit ñi nit ñi di gis xam ne loolu am expérience dañuy xam ne kii kat ku am expérience ci li muy def la waaye mbokk yi nañu laaj iblis moom li muy def ban expérience la ci am na nangami junni ci ay at ba yàlla sàkkee aadama ba tey waxuma sax yonent bi waaye xool la Aysa rek Aysa nga xam ne ci ñu mujj ñi la bokk ndax Aysa yonent yëpp ko jiitu Muhammad rek la jiitu juddug Aysa ak fii ñu toll di ko waxal fi ñu ngi ci 2012 2012 mooy ñaari junni at ak fukk ñaar te loolu Aysa rek la te Aysa li ko ji yi ci ay yonent bu xam bala yonent yëpp ko jiitu boog mu jeex xoolal diggante Aysa ak tey rek muy ñaari junni at ak fukk ak ñaar ñu ne la loolu leng la ci expérience bi Iblis am ci caay-caay gi muy def la ko jiitu moom bul xam nu mu tollu ci ay at mooy ba suñu borom sàkkee aadama ba tey kon kii mag mu xam mag mu xamuk caay-caay la mag mu xam ni mu yàq ñu ñim këppatal ñëpp ña ca rëcc bëriwuñ ponkal yoo xam ne dañ leen a ci ñoom ba leen seytaane këppatalee daf leen a jàpp ponkal yoo xam ne jàppoon nañ nit ñi kenn ëpp leen daraja ba leen seytaane këppatalee daf leen a yeew loolaa tax kon ka mucc mooy ka sunu borom musal yàlla na yàlla boole nu musal seytaane moomu bokk na ci pexe yi nga xam ne nag daf koy def ngir yàqal doomu aadama ginnaaw bu ñu xamee kuy seytaane ñu xam ni nekkul mbindeef bu mel ni ñun di dox nii ñu di ko gis suñu borom ne innahu yaraakum huwa qabil min haysu la tarawnakum ñoom dañ leen di gis yéen du ngeen leen gis dañuy dugg ci sa yaram comme ni dara di duggee sa yaram dañuy soppaliku di mel ay melokaan waaye loolu lépp bu mu la tiital boo xamee fekkukaay yi sharia jàngale rek da ngay xam ni seytaane kon ku doyee di la ndax sunu borom ne inna kayda shaytaani kaana daifa pexem seytaane daal soof lool maanaam mag moo xam ni moo la mag moo la raw sa judduy maamaati maam fi la ko fekk mu am ci capacité loo xam ne amoo ko mu di la gis te doo ko gis wax dëgg yàlla ci xelum doomu aadama kii moom bis bu ne waroon na la mën a faagaagal nga dem te loolu lépp teewul rek am ngay jumtukaay yoo xam ne mën ngaa mucc ci moom xam ngeen kooku ku ñàkk fayda la moo la mag moo la raw moo la ëpp expérience da lay gis te doo ko gis boo tëddee nelaw jekku na la te ba léegi mënul fexe ba def ay pexeem ci sa kaw kon na nga yëg ni mbalaan mi nga sàngoo dëgër na dëll na waaye tal na lool bokk na ci pexey seytaane ci yàq mooy pexe yam pexe la nit yéen ci yàlla nuux ya donte loolu leeraloon na ko ci xutba yu yàgg ya paase waaye jaaraat ci ci gaawal rek xam ngeen ne nuuxin ca jamonoom ay nit yu baax ñoo fa nekkoon yu ñuy tuddee wadd suwaa yaxuus yaawuq nasr mu mel ni ay kilifay diine rek comme suñu réew yi boo ko doon jël fii ci misaal ci Sénégal gi ñuy dund tey ba gaa yooya faatoo li may nettali alquran la léeg-léeg nit ñi dañuy bàyyi xel ni maanaam alquran ci boppam waxi suñu borom la ndax moom moo fekkee ca suuratu nuux suñu borom mu ni gaa yee dañoo seytaane daa bàyyi ba ñooña faatu seytaane toog ay at yu yàggul rek daal di ñëw ni waaw yéen waa dëkk bi yéen ah wadd yaxuus yaaruq nas rek suwaa moom nii ngeen leen nara a bàyyi rek ñu suul leen rek fàtte leen ah loolu de du xalaat fekk seytaane mën na wane melokaanu nit ñëw di la wax te loolu dina saxaat léegi ci kanam gaa yi laaj seytaane waaw nu ñuy def mooy da ngeen di seet gox bu nekk rek ngeen tabax benn monument boo xam ni maanaam bu ngeen ñëwoon ba ci koñ bi ngeen tabax benn monument bu tuddoog wadd bu nuroog wadd muy ab xërëm estati gis nga foofu la jaamu xërëm tàmbalee estati boo xam dafa nuroog paa bu ñu tuddee wadd demaat ba ca wetu ndakaar ngeen tabax benn estati bu ñuy tuddee yaxuus fee yaaxu fee nas bu ko defee saa bu ngeen leen rombee seen xel yi xalaat ni ah cheikh diw de sëriñ diw de mi ngi nii moom jaamukatu yàlla ngeen di ko fàttaliku xanaa bu yemoon foofu baax de waaye déedéet boobu fekk na seytaane expérience am lu sori la te xam na dafa gudd fan moom même bu ko junniy nit yi rëccee fanweeri junniy nit ñi ngi ñëw te dina leen am bu ko defee ñooña moom njombe ga daanaka defuñ ca lu bari ñoom dañ koo defari estati rek daal di faatu seytaane bàyyi ba lu jege téeméeri at fekk ñoo ña ko defaroon ñoom faatu nañ seytaane ñëw feet feeñu leen waaw yéen est-ce que xam ngeen estati yi lu mu fiy def ñuy nakk nakkal mu ñu leen dafa am góor gu ñuy wax yaxuus ak yaxuq ak nasr ak wadd ak suwaa ay paa yu baax lañ woon yoo xam ni gis ngeen ñu ne tabax fii saa bu ñu musaane ñàkk taw bu ñëwee sujootal leen bu ñu leen ñaanee taw bi wàcc ku ci am aajo boo ñëwee sujoot seen kanam ñaan leen aajo ja faju jigéen ju mënta ëmb boo ñëwee raay sa biir te seen doj wa nga mën a ëmb ila axirihi di wax ay wax gaa yi gëm ko foofa la jaamu xërëm tàmbalee ila yawmina haada loolu sabab la ci nit ñi di jaamu ay xërëm ba gis ngeen ci jamono yant ba bi toj xërëm yi ca Kaaba gis nga loola dinaay wax ni gis nga fi ñuy dund tey kilifa yi ñu fiy wooyee kilifa diine nga xam ni ñenn ñi koo gis ma nga takkum njël la denc def leen ca kee moom kilifa ak la jël def ko ci calendrier wékk ca néegam kee moom kilifa ak diine la jël wékk ko ci saalam yee ñu wékk ko ci oto yi wallahi amul benn yoon bu ma koy gis lu dul lii la sama xel bi dem ndax seytaane lii ñi koy def bu ñu faatoo li ci am cim lënt dafa bari te xoolal naxa yi ci nekk dem nañ ba technique leen dañuy jël sëriñ diw ak sëriñ diw boole leen mën nañoo dem ba fenloo histoire ndax histoire mën naa xool ñu ne ah diw ak diw kat ñu ngi ne ñoo ànd photo jamono te fekk déedéet ñoom jamono te benn ngoo ñaareel mooy léeg-léeg nga gis ku dugg ci oto seen sëriñ diw mu daal dugg raay doog a toog mbir maa ngay tàmbali léeg nga gis koo xamante ni ca photom ba ca bu xëyee bu amee feebar ca lay raay taf ca kanamam wala ci biiram gis nga bu yàggee tiit naa danañ leen jaamu moo tax mbir ma léegi mbir mi kiif kiif la kii daa nekkoon bant wala doj di ab xërëm kii nekk ab photo moo tax l'islam dafay tere loolu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na malaakam yërmande du dugg kër goo xam ni estati ma nga fa nataal ma nga fa bu tege moo tax mu ne Ali ibn Abi Talib nataal boo romb daanelal stati boo romb moxoñeel bàmmeel boo romb mu jóg jógu ca kaw maasale ko loolu mooy jàngale sa yonent li ngay def nag mën ngaa xool jàngale kum doon waaye lii moom mooy jàngale bi yonent bi sallallahu alayhi wa su ko defee gis nga ñu commencé di jaamu ñu baax ñooñee te fekk ñooñe ñoom sax amaana moo tax léeg-léeg booy seet histoire nit ñi léeg-léeg lu bon li nit ñiy def dinañ ko askanalee amaana na sax ñu bari ci ñoom sori woon nan loola waaye ñoom fekkeewuñu nit ñi leen jël def leen ay yàlla wala ay musulukaay tey jii defe naa bu ngeen demee ci armeel yi xam ci lu wér ci li may wax ndax fii leen dëkk ci réew mi fi ne nii am na ay armeel yoo xam ne ñooy dundal askan wan bokk maanaam xam ngeen ni armeel bu demee ba ñu defar ko ba mu jekk wut place boo xamante ni fa la ñuy sànni kayit wut place boo xam ne fa la ñuy verse ay ay ay ay numtrati ay weccit bu xew-xewi xew diine yi ñëwee da ngay gis ay saakoy saako lañ fay sol su ko defee loolu ñu koy jariñu ngir nit ñi ñëw di ko barkeeloo jooja alal wallahi alazim dafa xaram loolu aklu amwaali naas bil baatil te suñu borom ni wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatil bu leen lekkante seen alal seen diggante ci neen te loolu alquran moo ko jàngale na ci ay pexe moom seytaane nax gu mu naxoon waa badar gis ngeen yéefar yi bi ñu dajee te lii may wax mi ngi suuratul anfaal suuratul anfaal mooy defe naa ñeenteelu saar wala juróomeelu saar boo jógee baqara sunu borom mu ni keroog bañ dajee badar yéefar yi daal di daje nan la ñuy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iblis dafa ñëw melokaanu melokaanu benn waay bu ñu xam bu ñu wax suraqata ibni malik suraqata ibni malik ponkal la woon moo xam ni am doole njool ca kaw moom moo doon dabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu doon riñaan ngir dañ cee teg téeméeri giléem suraaqata daal di ñëw fekk leen ci biir daaru na nadwa fekk seytaane la moo yor jëmmi nit xoolal iblis ni mu kàccooree mu ñëw dugg si nuyoo gars yi daal di koy seen ni ah suraaqa yegg si na fekk du suraaqa booba iblis la mu ni gis nga yéen sasalam bu leen ko tiit bu leen ko ragal nañ leen dem badar man xam ngeen ma jàmbaar laa man gis ngeen ni ma mel bu soobee yàlla buñ dajee dinaa def muhammad lu mel ni nangam ak nangam xam nga boo jëmee ca xar gis koo xam ne am na doole ku la topp sa xel day dal fekk seytaane moo def loolu ngir jëñax leen gis nga keroog ba nga xamante ni gaa yi dem nañ ba jub badar seytaane daal di xool allahu akbar mu ne inni ara ma la tarawna seen daal seytaane la ko tax daw du yonent bi de yàlla moo wàcc ay malaaka ci asamaan malaaka yi wàcc yor ay kaala yu vert borom xam-xam yi siiree ñu ni benn yoon boobu la malaaka yi masa wàcc di jàppale yoon sasalam ci xare iblis ni yunn seen malaaka yu fees dell mu ni wëqat daw gaa yi di ko woo naa ko e eh, suraqata foo jëm fekk moom seytaane la mu ni inni ara ma la taraw na gis naa lu ngeen gisul wax na dëgg gis na luñ gisul su ko defee mu daal di daw kon nax na leen ba jañax leen ci jaasi yi nga xamante ni moom la jullit ña yoroon seytaane day ñëw fekk nit ki joxe fii sabilillah mu di ko jax-jaxal ah moo yow sa waay sa lii boo ko joxee ak jamono bi ni metteeg fitna yi di ko waxal ay wax su ko defee mu daal di bañ a joxe suñu borom ne alcheytaanu yaidukum alfaqra wa yamurukum bilfaxsha wallahu yaidukum magfiratan minhu wa fadla wallahu waasiun alim suñu borom ne cheytaane day daf leen di dig ak ñàkk di leen digal lu bon waaye yàlla moom daf leen di dig ak njéggal ak yërmande ndax suñu borom moom ku biir la maanaam ku am yërmande la ku am ay ngëneel la bokk na ci ay pexe moom seytaane dafay ñëw rës daal di sukk ci xolub aji jullit bi di ko jax-jaxal ngir mu bañ a fàtte mu bañ a fàttaliku yàlla sunu borom ni istahwada alayhim shaytaan shaytaane moo leen jax-jaxal te seen biir xol ya fa ansaahum dikra allah mu daal leen fàtteloo la nga xamante ni moom mooy tudd yàlla sunu borom ni ulaika xizbu shaytaan ñooñu dañooy mbooloo ma nga xamante ni mbooloom shaytaan ala inna xizba shaytaan hum alxaasiruun mbooloom shaytaane di ñoom ñu perte la ñuy doon abdullah ibne abbas mu ni shaytaane dafay ñëw euh, jonkan wala mu sukk ci xolum aji gëm yàlla ji nee na su ko defee di ko fàttali ay yëf yoo xamante ni mooy yëfi àddina bañ koo fàttali mbiri suñu borom mu daal di fàtte yàlla subhanahu wa taala su ko defee dootu ko fàttaliku moo tax almu'taz ibn Suleymaan mu ni seytaane day dafay ëf ci xol doomu aadama saa bu meree ak saa bu kontaanee loolu mooy lan da ngay gis koo xam dafa mer def njaaxum goo xam ni boo ko déggee rek nga taf sa gémmiñ nga gis ku mer wax loo xam ni aw askan mën na caa tas fekk seytaane moo koy goofale maanaam boo meree xam ngeen ni xol mooy fudd di wax loo nit di ko def loo su ko defee seytaane day ñëw di la ëff ngay sinkiliku mu lay ëff ngay sinkiliku léeg-léeg mën ngaa wax ba wax lu tasum réew mën ngaa wax ba wax lu tasum dëkk am na mbir yoo xam ne mbiri sekkare la kenn waru ko woon a génne ay ab bàyyeeg maam yi di fi dund ñun lañ ko ko nëbb mer tax nga mooy ko waxoon léegi tey nga yey ko su ko defee daal di njëkkati ko wax loola te fekk loola nga wax mën naa tasu askan wa illaa léeg-léeg seytaane nit ki dafay dañ koy def lu ko metti mu di ko gonfale kii dala gën kii dala nangam jëm ko mu dee même buy tëdd kaso après da ngay génn di la gonfale su ko defee jamono xam ne ni moom après day tëdd ko garaawul gis nga kii dee bu ko ne yow mii kat am nga fulla bu ko defee nga def la ngay def ba nopp seytaane rocceeku dem nga daal di seg sa réccu kon gis ngeen pexe yu mag yu saay saay yooyu nga xam ne iblis da koy def bokk na ci ay pexe moom seytaane bu ñëwee ci benn waay fekk muy ab borom xam-xam daf koy jax-jaxal ngir nax ko gis loo ko boppam ah yow sa waay yow yow de moom gis gis nga fi mu nekk nii de yow de boo defee conférence fi mu nekk nii kenn des àddina bi yëpp dañuy ñëw kii yow kay fi mu nekk nii nit ñi fi nekk ad fii kay yaa raw fi nekk nii réew mi kay fi ne yaa raw di la jax-jaxal loolu du la ko wax ci publiquement da koy wax ci sam xel ah yow kay fi mu nekk nii miraas kay kenn dàqu la fi yow moom yaakaar naa bu doon wër ci àddina bi yaa fi dàq miraas he yow kay fi mu nekk yow kay masala moom bu amee moom bu ca diw waxee rek moom yëf yi daal di sotti su ko defee yaa ngi toog fi nga toog nag di xuggale ko ka sinkali ko fekk seytaane mi ngi lay yàqal te yëgoo ko loolu ak a bari wallahi summa wallah yal na yàlla boole ñu musal waaye bari na loolu muy am tey maanaam fi mu ne nii nga xam dañoo toll ci jamonoy bind toll ci jamonoy wax toll ci jamonoy média nga xam ne télé yi dañuy jël rajo jël ila axirihi wallahi léeg-léeg nga taxaw di wax ak nit ñi te fekk yàlla sa taxulaa jóg yooyu yëpp mi ngi am xubbul jaa wa suhra nit ñi xam ne yow am nga xam-xam nit ñi mel na nangam te it nag mbir mi mucc ci du ngóor a de déedéet mucc ci du ngóor mucc ci ndimbalam suñu borom la maanaam pourcentage boo xam ne bu doon téeméer la fi ne daanaka juróom ñooy mucc ndax mbir mi ni jafee mucc ndax ñu yàgg ña daanu nañ ca kon mujj ñu taxoon di wax gis ngeen waa de bala am Balham ibni Baawura ci jamonoy Moussa alayhi salaam muy borom xam-xam boo xam nitu yàlla bu mag ndax alquran moo ko seedeel ah sunu borom boo demee ci suratul Aaraaf mu ne watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaxa minha yàlla mu ne man maa ko xamal xam-xam man yàlla xam nga ko yàlla seedeel loolu ko du du ko ndaw waaye xam-xam boobu di ko jay muy jayeexu ba gars yi doon xeex ak yonent yàlla Moussa ñëw ci moom ni ko dañoo bëgg nga ñaan defal ñu ay pexe ay débat déeb ngir ñu gañe Moussa te mu xam na ni moom borom xam-xam la xam na ni Moussa ab yonent yàlla la gaaral dañ ko mu lànk gars yi daal di dem seytaan yi ni leen ah kii de borom xam la waaye da ngeen koy ger mooy li ñuy def tey moo tax gis nga borom xam yi dinaa leen wax ni kenn ku ci nekk jéem yëngatu nga tos tusi am sa yëfi bopp wallahi boo ko deful ñu ger la ndax dañoo toll jamono joo xam ne crise bi dafa metti te même boo dee borom xam nit nga comme nit ñi da am jabar di am doom di am kër di fay luyaas di fay ndox comme ñëpp waroo nangu sax nit ñi dala ko bàyyil gratuite fay ko comme ñëpp ndax citoyen nga simple comme ñëpp loolu mooy ngoore loolu mooy nite su ko defee bu ñu xamee ne yow mii ku ñàkk nga ah saa bu la gisee booy dem da taxaw ci tali bi jël oto su ko defee ñu daal di fexe nun la mayeeb oto te xam ngeen ni ku la ëmbal sa euh, sànqal ëmbal sa kersa ah saa bu la gisee yow nga nekk waa joo xamante ni xëy na koñ ba nga dëkk am nga fas tuut ñu daal di ñëw dagg fa loo xam ne toll na ni innama ni la lii moom dañ la kaa may ah waxuma bul jël de waaye nag am na bunt yoo xam ne boo ci xasee dugg day da nga bëgg a génnee ca fenêtre mu tëla magum bunt ba kon yu mel noonu fa la ñuy jaar jar na ñu daal di ko andil ci or loo xam ni toll na ni lu bare bare bari mu xool ko xelam dem ca loola seytaane jax-jaxal ko ni ko yow da ngay xëy doo am dépense yaa ngi ni mbaxal ngay toog wax ay wax mu daal di jéng jëm ca ñoom suñu borom mu ni na ma ko alagee mooy damaa bocc aw làmmeñam làmmeñ wi di direeku comme xaj buy daw ni muy def mu ni fa masaluhu ka masalil kalb suñu borom mu ni borom xam-xam boobu mujj na dem ba mel ni ab xaj in taxmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas toog benn place làmmiñ waa nga boccee ko mel ni xaj buy yalkat suy daw tamit ma nga yalkat suñu borom ni misaal maa ngoog nag su ko defee loolu moom borom xam-xam yi ñoo ko moom yaakaar naa xissa biñ fi nettali woon ci waa jooju nga xamante ni moom lañ dénkoon ndaw sa mu génn dem ca ndaw sa ba njaalook moom seytaane ni ko man mi la ko digal maa lay mën a muccal mooy weddil yàlla nga rey bakkan bi def nangam ko defee sunu borom daal di koy seetaan gaa yi rey ko moom lay wax kamathali shaytaani id qaala lil insaani ikfur falamma kafara qaala inni bariu minka inni axaafu allaha rabbal alamin bokk na ci pexe yi nga xamante ni seytaane da koy def mbokk mooy di xiirtal nit ci muy rendi te yàlla taxut te loolu bari na tey lool ñee dañuy rendi sotti ca géej ga mooy tuur ba ñee dañuy sotti dem ca ca xay ga ca guy ga lépp ca guy ga lañ koy defee li may wax waa kaw ga xam nan ko léeg-léeg nit ñi daal di rendi ngir bëgg nawet bi baax ila axiri yooya rendi te yooya rendi waxuma la ko koy def xaraam na waaye yow boo ko xamee daganul nga lekk ko suñu borom ni wala taakulu bu leen lekk mukk mimma lam yazkur ismallahi alayhi loo xam ne kenn tudd tudd yàlla wa innahu la fisq loolu ak caay-caay la wa a shayatina la yuuxuuna ila awliyaihim li yujaadilukum saytaane yi ñooy déy nit ñi di leen loo ay pexe ren di leen fii bu ngeen deful liigéej géej gi dana fàq ñëw bu ngeen deful nangam nangam dana am bu ngeen ko deful nawet bi dana yàqu yooya sunu borom mu ni saytaane moo koy def mu ni wa in ataatumukum innakum la mushrikuun bu ngeen leen toppee na ngeen xam ni yéen ay bokkaalekati yàlla geen kom ñoom kon ka koy lekk te gëm ko ka leen di wuy see ka koy def ñoom boobu bokk benn wàccuwaay bokk na ci mbir yi nga xamante ni saytaane da koy def mooy dafay xirtal nit ki pour muy dépenser alalam ci lu dul yoonu suñu borom suñu borom ni walladina gaa ñi nga xam ni yunfiquuna amwaalakum dañuy dépenser seen alal riyaa an naas te fekk ngistal ci nit ñi tax ñu di ko def am na koo xam ni la muy dépenser ngir ñu wax ko télé ah sinistré yi de biñ koy diw sàngam joxe na nangam loolu lu ci jar wax loolu jëru ko nit ki bu fekkee yàlla moo tax muy def dafay def te kenn du ko xam wallahi benn waay mi ngi may nettali koo xam ni borom alal bu mag la woon waaye ni mu daan joxee fii sabilillah même jàkk ji mu dëkk sax daawu ko jox imaam moom daal day bàyyi bàyyi pexe rek mu daal di ñëw rek roof ko ci ron sujaada bi imaam di sujoot amaana xëy na bàyyi ca stat soo xam ne imaam bu sujootee dana ko gis mu def ca adresse boo xam ne kenn du ko xam ñu daal di jël léeg ñu ñëw fekk ci ki ma ko nettali nee na keesu jàkka ji léeg-léeg day dañuy koy daaj ji fekk ci ay dërëm dërëmi juróom-juróom fekk ci benn enveloppe bu dee cent mille fekk moom moo ko ci tàbbal dem na ba faatu te ñi xamuñ ñu moo koy def loolu mooy sellal ngir yàlla loolu mooy sellal loolu mooy jëriñ nit ki ci àddina jëriñ ko bàmmeel jëriñ ko bu dajeeg borom subhanahu wa taala loola mooy keral nit ki keroog bu naaj wi tàngee ca la nga xamante ni moom mooy péncam suñu borom ma suñu borom mu ni ah, gaa yi duñ gëm yàlla waaye duñ gëm bis pénc képp koo xam ne seytaane moo nekk àndandoom de kooko bon na ab àndandoo bokk na ci pexe yi nga xam ne seytaane da koy def mbokk yi mooy ñi nga xam ñooy ñooy tuddee ay kilifay diine kubaraaw diin koo xamante ni xëy na kilifa diine la am nay taalibe dañ koo toog wala borom xam-xam la ni ñaa ngi koy déglu wala nu mu tuddati kilifa aada yooyu yëpp bu ci mën doon iblis day ñëw di la jax-jaxal na ca lam lay jax-jaxalee mooy bàyyi julli waxoon naa leen bokk na ci pexe seytaane yi mooy day siñanteeg yow ay pacte pour nga am la nga bëgg léeg-léeg da gis koo xam ne la mu koy waxanteel mooy faaw sab aawa dee nga nangu wala sa taaw dof nga nangu wala benn cër ci sa cër yi faw mu dagg moo xam baaraam lay doon bu loxo moo xam baaraamu tànk faw mu dagg wa illaa faw nga def sacrifice nangami bakkan pour maa ngi yow ñu ànd wa nga jël saar sàngam bindee ko dereti jigéen ni mbërëg ma doog a ànd ak yow wa nga jël kaamil tàbbal ko ci barabu sobe lu mel ni foos ma doog lay nangul wa nga jël ab ber toog ci di ci julli lu mat ñeent fukki fan te boo demee wan ak doo laabu te boo ñëwee doo jàpp noonu ngay jullee sa julli gi mu doog ànd ak yow wa laa mu wax la ay wax yoo xam ni maanaam xeeti mooy yàlla yu salte yooyu ndax seytaane loolu la bëgg gis ngeen ku ngeen fi gis ñu naa ay moo man ak moo nangam ak moo nang gis ngeen ki na nit yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg kooku du bëgg sax nit nit ñi xam ko wallaay kooku du bëgg nit ñi xam kooku saa bu naree siiw jaral na ko tuxu ki man dëgg nga xam ne xeeti njabar yooyu defu ca dara pourcentage bi fi mu nekk nii est-ce que 1 pour cent am na la ñuy wax fi gis nit ñi di ko roy kilifa diina la ku mën a doon ci bunt bii may waxee nag ay maama nag bu la defalee lii nga def léegi bu la def wallahi boo ko toppee ba ci biir am na pacte yu mu signé ak seytaane pour yëf yi nangu moo tax muy mën a njabar moo tax muy mën a luxus xaalis moo tax nga am jafe ci yoon mu génn la ca mën na laa jox ab téere boo xamante ni tey boo nee ko raafit takk donte xaraam na parce que bu leen fàtte ni am na jeexintal ak araam na bokkul mais da ngay dégg ko ni ah waaw yéen nangam yéen a koy tere te loolu boo ko defee mu jàpp waaw waaw boo ko defee dana jàpp ndax xam nga ni boo xiifee booy lekk yàpp mbaam xuux di nga suur te loolu def xaram boo maree booy naan sàngara mar wa mar wa dana dañ te loolu dafa xaram ila axiri kon maanaam def na jeexintal jotewut ak araam na dara su ko defee yooya maaman yi di man ngeen gis ko tey woto yi di bari léeg-léeg publiquement nit ñi nëbbatootuñ ko da ngay gis léegi ay publicité la ñuy def ci rajo bi kii moo man nangam mooy def nangam bu na gisalee nangam yooyu yëpp yëgal ni ñooñu ay pacte lañ sinete seytaan bokk na ci mooy bàyyi julli wa illaa bu bàyyi julli garaawee mu ne la bul julleeti ca mbooloo ma kilifa diine yu bare bare bare bare bare ngeen duñ julli juma maa la ko wax maa la ko wax boo ko laajtee léegi léegi léegi demal ci ay nit ñoo xam ne xam nga ni ñii ñu ngi dëkk ak ñoom te ñuy wax ngir yàlla laaj leen duñ julli jumaa déedéet parce que seytaane moo lay wax da ngay ti déjjati poto bu rëy duñ julli jumaa way laa dinañ julli sax ña ca tane waaye duñ jullee ci mbooloo ma seen kër la ñuy jullee am na ci ñoo xam ne aslan duñ julli billahi alxayi alqayum fii ci Sénégal am na ci benn waay boo xam ne ñi ko topp tey boo tuddoon aw turam boo tuddul aw turam nit ñi dar seen gémmiñ def nañ ay gëstu yu yaatoo yaatoo yaatu benn waay nee na ku ko mas a gis muy julli benn yoon ñëwal nga wax ku ko mas a gis benn yoon benn yoon ñëwal maam daal dinañ gis muy ah de nit mën ngaa dëkk ak ay nit plus de nangami at te kenn mës ta gis nga naa nekk xanaa sax dañ naan gis nañ ko benn yoon wala boog ñaari yoon wala boog liñ ko gis bëriwul dëgg la nit ñi mën nañ laa bañ a gis ngay julli lu bari xëy na fa ngay jullee mën naa am sa kër la sax donte loolu baaxul waaye kenn musu koo gis mu julli ku kenn mus ta gis nga julli li ñu gëm mooy doo julli te loolu mi ngi am yooyu am na mbir yoo xam ne seytaane moo koy def ak nit bokk na ci mooy bul jonjonteeg nit lu bari su ko defee da lay da ngay làqu ah dem jàkka ja dem jumaa nit ñi dina gis su boobaa ki la soxla kay foofa la lay ko waaye dootul ñëwati sa kër di rang wala baril ay soxna ñeent ki la lislaam wax nañ ci yem seytaane dana la ah loolu du dara nga daal di jéggi tey ñu bare bare bare bare ngi nii ñoo xam ni fi ñu jaar du foofu iblis day jaar yow ci bunt boobu nga takk ay ay ay soxna yu baree baree bari boo xasee passé ñeent kooka nekkatul soxna la ngeen def yaag moom njaalo la doom ju ci jub doomi njaalo la même bu ñu ko tuddee kilifa ak diine te fii lan dëkk du ñu ay étranger ñëwoon fii li fi xew lépp lépp lépp nit ñi xam nañ ko bu njëkkoon nag dafa wuuteeg tey bu njëkkoon mag ñi dañoo amoon sutura dañoo amoon sutura ndax mbir mbir danaan xew war a fàq dëkk bi nga gis ñi ko yëg ci seen biir daal di laaj leen leen ñi jege ñenn ci ñi may wax am na ci ñoo xam ni dinañ xam ni diw sàngam mii daa yor sant sëñ bi rek waaye bokkul ci njaboot gi dañ daan cel kenn du wax dara ñoom mag ñi ndax dañoo bëri woon sutura bu miraas jotee dañuy fexe ba miraasee ko miraasum biir néeg lii may wax nii bu ndee goneel xam nañ ko ndax ay mag ñu ko wax miraasum biir néeg lañ koy def ndax su boobaa mag ñi xam nañ ni diw mii war ta doon dëgg la nag mi ngi yore santu askan wi kenn du ko wax dara noonu la ñuy bàyyi rek mu jàll ndax sutura sutura nag lu la ci kaw bu fekkee amul lenn lu mu yàqal diine yii mbir yii mu ngi am fii nit ñi di ko dund boo demee feneen moo fa am ku nekk fa nga dëkk nga xam bokk na ci bexe yi seytaane yi def mooy bañ a aji ñu baree baree baree bari xam nga ni boo xoolee yow xam nga ni xel ñu ñàkkuñ lañu ajee waaye duñu aji fekk booba lañ fàq ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni seytaane mi ngi leen koy def loo wa nañ sax ci li nga xamee moom lañ fekk suñu bàyyi ak suñu maam yi seytaane nag li ko tax a garaaw mooy bu ñëwee fóon sa bakkan bi bu ñëwee fóon sa bakkan bi gis nga da ngeen yaakaar iblis gis nga expert bu garaaw du ñëw rek songu la nii déedéet gis nga iblis bu ñëwee ci yow day fóon sa bakkan bu fóonee bakkan bi xeeñtu dafa am benn ngelaw bu koy xeeñ xeeñtu googu li muy xeeñtu mooy kii ban genre la saa bu la xeeñtoo day xool kii ban force laa war a mën a jaar ak moom ndax iblis xam na ni du nit ñëpp laay bokk ni may yàqale léeg-léeg da lay xeeñtu fekk na yow sa ku bari tiitar nga ku diis nga ku maanaam da bëgg ay ay xugale ko mu ne ah yow de sa waay jëru ngay dee jàng jàng fii sa dem fii yor sa kaye naan alifun baawun nit ñi di la gis ah loolu de moom jëru ko moom moom sa waay yow daal toogal fi nga toog rek yàlla dina la suturaan boo mënee am benn kaset boo làqatu déglu ko nga déglu ko waaye nit ñi di xam ne yow fii nga jàngee diw moo la jàngal ak ay yooyu moom su ko defee nga daayee toog dootoo jàng jàngum sariya léeg mu fóon bakkan bi gis ni kii ku tayal la su tayalee ci ponkal ma lay jëmal xëy ñu ne bàyyil julli ndax xam na ni bàyyil julli daa garaaw day yàgg ah, xadis yi ñëw ci julli mbooloo dañ nee na mbooloo moom boo julli da ngay am ñaar fukki tiyaaba ak juróom rek waaye boo jullee sa am nga ko commencé jullee sa nga dem ba mu yàgg mu ne ah waxtu wi de am na muxtaar am na dara wi loolu njàngoon ca lax dari téere nga commencé di guddal waxtu wi bis ngay xëy rek mu daanal la ci suuf nga bàyyi julli bokk na ci ay pexe moom seytaane bu foonee bakkan bi gis ni waa ji dafa bëgg xuggale koog rëy rëyloog siiw da koy def ci ngistal maanaam moom bëgg na rek lu mu def nit yëg ko di ak diw ak sàngam bi ñu xuloo maa fexe ben juboo loolu ci jar wax loolu jarul wax yàlla gis na ko bu fekkee tiyaaba nga jëloon sax yàlla xam na ko wàññal say bàkkaar te te li gën a lay wan nit ñi sérieux wuñ ci li ñuy def doo ci gis kenn ku yore micro nag di wax caay-caay ak sàngam maa ko defoon caay-caay sàngam maa ko defoon déedéet parce que loolu day tax nit ñi weddi la waaye kay lu baax li nga xamante nii boo ko waxee nit ñi gën laa daw loolu nga la seytaan di fexe nga di ko wax bokk na ay pexeem bu fóonee bakkan bi fekk waa ji mu nekk koo xamante nii ku neex baat la mu daal koy dugal nag ci ndéggtal moo xam ci njàng alquran la léeg-léeg ngay nekk jàngkatu alquran subhanallah ndeke njëf yi mbokk yi kenn mucc léeg-léeg nga nekk jàngkatu alquran sax mu di ah yow de sa baat bi sa waay yow de moom nangam nangam su ko yow booy jàngati léegi yaa ngi jàng alquran waaye jàngatoo ngir yàlla yaa ngi bàyyi waale xel nit ñi lay déglu ah mu al musiba moo tax nee naa leen gis nga mbir yi mbokk yi mucc ci du njàmbaar du ngóor de waaye ndimbalam sunu borom dëgg la bu seytaane foo ne bakkan bi gis ni waa ji kat ku bañ da koy dugal ci yëddoog ah, di di di di di lijjanti ay mbiri kumpaag boo demee diw lii la fas ci xolam ak yooyu daal day dugal ca bàkkaar yi nga xam yu garaaw la gis nga bu ñëwee nag xool ni yow doo ngis tal doo ndéggtal jàmbaar ga yaa ngi sellal yaa ngi góor góorgóorlu maanaam ñun waa jàkka ji yépp bu ñu gisoon waa ji ni bëgg nañoo mel ni diw da ngeen yaakaar ni kooku dana jaaxal seytaane du ko jaaxal de day xam ni porte yi mu doon fëggee dóoree gaa yi bu la si dóoree daanu xam nga nu muy def da lay dikkal yow kay jàmbaar nga yow moom jàkka ja kay dee fa jiitu yow kay jërëjëf sax ngay xaar ba waxtu wi ñëw deel teel a sax dem looloo gën a baax gis nga moo yow yow yow kay ni woor yow kay wooral weer sax jiital ci koor gi gis nga de bu weeru jeexee gunge waat ko weer ah woor bi sax tabaski korité de loolu moom sariya koy tere ngir bëgg waaye boo ko woroon sax baax na maanaam ci buntu ëppal la lay dugal léegi te xam ngeen ni sariya borom sariya xam na wali si ñu àtt nag yi àtt bi gis nga bu la yenu loo nangam ngay jéem a yenu lu ko ëpp bu yàggee da ngay xàbbar ñi ko daanook moom gis nga noonu la lay def nga dugal ci bi def kati bidaa yëpp fii la leen seytaane dugal xam nga ne bu yonente bi jàngalee kay zikr yoo xamante nii moom la ñuy def buñ jullee ba nopp moom ngay def boo yeewoo moom ngay def boo gontoo moom ngay def boo tiitee moom ngay def boo jàqee lan lañ soxlaa soxlaati keneen di ko wax di ko jàngale ak ku ñëwaat da leeral loola wala nga noppi waaye lu bees lu waaye di joxe kenn soxlawu ko kenn soxlawu ko wa maa aataakumu rasul bu leen yonente bi rek joxee moom mooy bi muy fa xuduuku jël leen kooku mooy joxe ñuy jël keneen ku ñëw di joxe waat da ngaa war a ñëw seet ci biir lim joxe nga gën koo leeral gën koo jàngale waaye boo ca dollee ñu delloo la ko ndax man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad su ko defee seytaane dugal la ci buntu boobu léegi au lieu que nit yittewoo njàngale yent jàngale ciy ñaan ak ñoom seen déedéet njàngale yi bàyyi diw jàngale lay gën a yittewoo walis ko alquran bokk na ci pexe yi nga xamante ni seytaane daf koy def mooy bu la gisee yow nga ragal nag nga nekk waa joo xam da nga gaaw a tiit gaaw a jàq gaaw a jaaxle ca buxaaba ya ca jabarkat ya ci gaafal su ma la dajeeg diw mbaa duma nangam nangam buntu boobu la lay duggal bu la gisee nag nga nekk nit koo xam ne da nga nekk nitu nit ñi comme li wolof yi naan nit ñi nga xam ne yow bëggoo kenn mer ñëpp nga bëgg a kontaan gis nga dana la fenloo dana la jëwloo dana la wax loolu dul dëgg dana yooyu yëpp ngir bëgg nit ñi bañ a kontaan bu ko defee fekk loola ñu ngi la koy bindal ci ay bàkkaar kon bunt bi mbokk yi bunt bu yaatu la boo xam ne jàpp naa ne waxtu yu gàtt yi mënu koy tënk xëy na des na ci naka la ñuy def ba mu ci pexe seytaane loolu laa la dina ma sa ñëw ci xutba yi ca kanam mu ngi ñaan borom bi ci yërmandeem ju yaatu ji yal na yàlla musal sunu noon boobu wax ba ibni munabbi dafa laaj benn waay ni ko waaw boo àndeek say waay ngeen dem ba ci yoon bi xaju borom tool bi daal di daw di mbaw jëm si ci yow nooy def mu ne ma sànni ko xeer mu ni mu dawaat ñëw mu ni ma sànniwaat ko xeer mu ni ko yaa ngi sonal sa bopp de xanaa borom xaj ba néewu fa mu ni ko ahankay mun demal nga làqatu ci moom ndax moom bu dee xaj bi toogal xaj bi dana toog mu joxe ci misaal mu ni kon seytaane jaamam suñu borom la saa boo làqatoo ci suñu borom muslu ci moom suñu borom musal la ci moom tey it rot na ci sunu ay njàngal yu bari yoo xam nit ki bu koy fagaroo di ko fegoo suñu borom dana ko musal ci seytaan ak ay pexeem nu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla sooyal pexe seytaane sunu kaw yàlla na yàlla musal lu ba seytaane bu mu am cër ci sunuy wax bu mu am cër ci suñuy jëf bépp pexe moo xamante ni mi ngi koy yëkkati ko jëmi suñu kaw boo xam yëg boo xam yëguñ yàlla yàlla dëkkal ñu ndiggam weñal ñu loxoom ñu ngi ñaan suñu borom musal ñu ci lépp loo xamante ni ay jëf la yu ñuy def fekk seytaan am na ca wàll rabbi aoudu bika min hamadati shayatin wa aoudu bika rabbi an yahdurun rabbana hab min ladunka rahma wa hayyi min amrina rashada اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain